dañu jot ni dañ ko bëgg a dagg ay dix hectares ci biir forêt classée te ku wax forêt classée wax ni lu ñu denc la pour nation bi pour que forêt classée bi mën a sauver nation bi mooy pollution yi jógee fu nekk ci kaw wala ci kaw ci ci oto yi te ku ne xam na ni forêt classée bi fa la route nationale numéro 2 jaar lii lii oto yi di pollutionné yëpp forêt classée bee koy jël il y a ICS il y ñoom ñaar ñëpp ku ne bu police sonné li mu waroon a dem ci kaw police euh, ci population bi forêt classée moo koy jël soo ci bëggee dagg 10 hectares pour ay cimetière di ko naxa nit ñi da nga dagoon ay cimetière pour ay géejowaay ak leneen lu ken xamul cimetière yooyu nga wàññi ko kon boo nee mbaaw da nga ko bëgg dagg pour def ko ay cimetière ñun nit ci d'accord ak kenn même bu du ay cimetière kenn du ko d'accord ak kenn parce que forêt classée bi nekkul pour waa mbaaw kese mais c'est pour national ñun nag dañu fi ñëw pour jox information population sénégalaise bi pour wan ni forêt classée bi ñun waa Mbao ñu kenn laal ko lu mu leen jaral lu mu leen jaral ñun daf ñu ko jaral bu ñu jaralee ñu jóge Mbao ñëw ba Dakar pour ñëw di kaas ak naaj bu tàng bi ça di dire bu ñu demee ba war a song forêt classée bi ñu jàpp ne ñun dañuy génn ak suñuy kilifa boobaa dañuy reyante ah non su boobaa ñoom premier cimetière yi ñun waa Mbao lañ fay suul te su parce su boobaa dañuy reyante ak ñoom forêt classée bi kenn du ko laal 1940 la forêt classée bi am biir mbaaw ci suufu mbaaw tey ñu ñëw am 2020 ngay dem a demander ay forêt classée pour def ko ay cité ou nga def ko ay hôtel ñun duñu ko nangul nit forêt classée nag mi ngi bokk ci ministère de l' environnement environnement bi la personne amul maire de la ville amul maire de la ville de Pikine amul ministre de kii ku mën a doon Abdou Karim Sall nañu teggi seen loxo ci forêt classée bi képp ku dugal sal loxo ci foore classée bi ñun waa mbaaw may ñu la si yoga lu mu leen jaral jaral nañu lu ko raw buñ ko bu ñu laale forêt classée bi gis nga premier cimetière bi ñu njëkk a dagg ñun waa mbaaw lañ fay suul kooku la ko ñëpp xam premier cimetière waa mbaaw lañ fay suul nañu teg seen loxo ci suuf maki Sall la ñuy waxal ñun amuñu pour di waxal benn ministre nii benn benn benn benn responsable politique maki salla mi ñu denk réew mi moom la ñuy waxal bu mu bu mu signé benn décret pour ñu dagg forêt classée buñ ko bu ko signé na jàpp ni waa mbaaw la fay suul. loolu daal mooy seen cri de cœur te vous interpellez directement le président. ah oui loolu moo nga xam moo yëngal suñu xool permettre ñu ñëw Dakar ci biir capitale bi fi nga xamante ni ànd nañu ak suñu morom yëpp ku nekk di kaas di ngay kaas ñu ñëw pour kaasal nation bi seen forêt classée encore une fois forêt classée bi dafa nekk biir mbaaw. mais nation bi ñoo ko moom ñun waa mbaaw a jege ñoo gën waa mbaaw ñoo njëkk jog jóg yuuxu na ñëpp topp suñu ginnaaw ñu ànd ci te nañu xam ne mbaaw il y a plus de six mille habitants yu fa dëkk ou bien deux mille habitants yu fa dëkk ñooy mbaaw ñun ñooy def euh, développement durable bi porté xeexu mbaaw yëpp ànd se ñëpp ci waa mbaaw Macky Sall bu mu signé benn décret na teg lépp ci suuf bu ko deful ñoom ñu njëkk a suul waa mbaaw lay doon waaw bon comme nii nii nii lay doxe sax euh, mouvement marché bi am na autorisation police yi dañuy ñëw encadré ñi dañ bëgg a jógee obélisque place de la nation euh, dox ba bunt RTS wax fa sunu doléance affaire suuf bi affaire dëkk bi nu muy doxee ay rapportu IGE yi génn genre yooyu daal ñun moo ñu gën a doolee tax ñi ñëw fii rek rek pour dooleel gars yi waaw loolu daal ñun moo ñu fi indi quoi. Euh, dañuy jógee obélisque place de la nation euh, dem ba rond point euh, foofu mooy terminus bi quoi waaw foofu mooy terminus bi waaw bon waaw boo gisee ñun ñëpp ñu bàyyi sunu liggéey ñëw fi ñun ñëpp am na luñ jàpp man mii di wax ak yow dama nekk ci liggéey mais dama ko bàyyi pour ñëw renk rek pour dooleel samay naataango wan Macky Sall na ko ñun sone su Sénégal bi li muy def ñu si lu ci la majeure partie ñun ñoo ko fal. mais ñun SONES bi léegi ñun la majeure partie kenn àndatul ak moom ci li muy def parce que li ñu gis ci dëkk bi rapport yi épinglé mu war a jàpp ay nitam ay nitam def ay jéem mu war leen jàpp du leen jàpp di jàpp ay ñoo xam ne nii seen temps weesu na ba pare daf leen di jàpp te jàpp leen ci dara ci affaire de politique la leen di jàpp wala leneen ñun ndaw Sénégal yi nga xam ne dañ bëgg dëkk bi avancé ñun loolu moo ñu métti ba waral yenn mouvement yi bëri ñu taxawal ko rien rek pour kaas daal bu bëgg dëkk bi gën a amélioré wu daal ñi jël beneen yoon bu baax bi euh, Sénégal émergent bi mu wax ñun loolu lañ bëgg mais ba tey jii nii moom taxawagul pour émerger Sénégal franchement parler. non ñun troisième manda bi moom dañ koy xaar ba keroog euh, jour bu muy décrété ne da koy def rek ñun dañ koy xaar ba jour boobu waa instant yi duñ ci am dara lu ñuy wax mais dañuy xaar ba jour boobu su boobaa dina xam ndaw Sénégal yi pare nañ pour defar Sénégal wala dañ pare pour Sénégal yàqu ci seen i waaw li waral euh, doxu ñaxtu bi mooy euh, titre foncier bi nga xam ne délibéré nañ ko Babacar Ngom Djilakh euh, 225 hectares voire 300 hectares moo waral tey sunu ñaxtu bi fii ci dakaar c'est vrai def nañ ko village tey nag ñu xool ne mbir mi c'est pas du mbiru Djilakh rek mbiru national la donc moo ñëwoon tax ñu ñëw fii dakaar ànd seeg sunuy naataangoo yi. pour ñu jàppale ñu ci xeex bi pour ñu retirer titre foncier bi ci Babacar Ngom. loolu daal mooy seen teewaay tey jii. waaw loolu mooy sunu teewaay tey fii dakaar waaw parce que itam euh, moom dafa ñëw jilaax ne dafay def projet projet nag boo koy def da nga koy da koy def ci anam yi nga xamante ne bi moom moo dëppoog ak cahier de charge bi bon cahier de charge bi ñu ko defee bi ñu paree noonu ñoom ñu jël mbir mi jël ko. def baay loolu doy ko mu dem def ko titre foncier def ni mu ko bëggee loolu nag duñ ko nangu loolu moom duñ ko nangu fen donc ñu ngi xaar euh, Macky Sall mi nga xam ne mooy jiitu réew mi injustice boobu mu rek mu réparé ko ci kàttanu yàlla. jërëjëf. bisimilah sëñ bi tur bi. Amadou Ndione. Euh, maanaam membre euh, de collectif de Guéraw. doxu ñaxtu bi mun nañu xam lu ko waral. waa doxu ñaxtu bi li ko waral mooy. Euh, dañu toog xëy euh, ñu jox ñu décret boo xam ne signé par le président Macky Sall si suñu suuf décret bi bu mu amee benn autorité état ñëwul gis ñu ñun ñi xam ne ñun ñooy paysan yi si problème mu suuf bi ñun nag ñu fexe gis ak suñu commune laaj leen ndax décret bi ñu wax bi ñu def bi président Macky Sall def nii ndax. yéen yéen ji o courant ñu ne ñoom yëguñu décret décret bi nag état daf ko jël def ko ci turu état bu pare jël ko conduire décret bi ci commune Somone bu pare jox décret bi jox suuf si Décameroon loolu moo indi moo waral suñu marche. yéen léegi loolu leen bëgg ci décret googu. waa décret bi liñ si bëgg mooy ñu fexey président Macky Sall fexey ba décret bi nga xam ne moo am. ak kan ñu kase ko daal. ak ñu fexe daal ñun suñu suuf ñu jot ko ci anam bi nga xam ne moo légal bu fekkee ne de Cameroun dafa jël suñu suuf état daf ko jox suñu suuf ci anam boo xam ne légalul parce que ñun mënuñu accepter ñun suñu suuf ñu bokk ci commune Sindia te ji ñu jël suuf bi contre ñu jël suuf bi conduire ko ci commune Somone loolu mun ñun mënuñ ko ab accepter deuxième mooy noo jëlee alali jàmbur te ñëwoo ci borom état président Macky Sall ma rappelé ko xamal na ko moo waxoon ci jam ñaajo ne képp ku bëgg a suufu jàmbur demal ci borom bu mu jox la ko botte moom nan la ay nitam mën a mën a ko jox décret conduire ko ci turu état ba signaloo ko ko ñan ñoo ko signaloo parce que mënoo wax ne bëggoo injustice te say nit def la injustice mooy ñu conduire décret bi mu ñëw si yow yow lan moo sa rôle yow président mooy ne ñii def loolu état bu leen xamee daf leen war a dénoncer rëkk seen i ndig parce que li ñu def somon ñun ak ñoom lagin bi moo dox suñu diggante somon wàll wi somon la wàll wi géeraw bote nag ñun tey jii de Cameroun bu demee buy avancer si docteur bi muy waxtaan ak la commune de Sindia avec le maire Thierno Diagne mais ñoom ñuy avancer si décret bi ba tey jii ñoom mënuñu wax ak ñun ñun ñi moom suuf bi mais dañu bëgg a xamal ne moom le maire Thierno Diagne na respecter la population de Guéraw te suuf boobu rek newul benn suuf bu am problème Guéraw y a le colline de Pascal Pascal commune moo commune moo ko jox 394 yoo xam ne hectares yoo xam ne mu si loxo mu ngi si loxo Pascal 13 hectares yoo xam ne tey ji Pascal mu ka ji moom la fay borom tool yi. les 394 hectares nan la dëpp dugg ci loxo euh, dëkkam euh, loxo Pascal parce que suufu Guéréo du du suuf bi nga xam ne décret bi nga xam ne Macky Sall moom la def yaa am na problème mu Pascal la colline de de Guéréo mais 3 394 hectares yooyu commune nan la def ba Pascal am 394 hectares seen borom tool yi tey jii ñu ngi taxaw di xaar. maire bi mu fexe défecté euh, annulé projet Pascal parce que Pascal la mu waxante woon ak commune dafa ci dara mais maire bi lu mu ciy xaar parce que mënuñu comprendre maire boo xam ne tey jii loo xam ne du lu rafet seen diggante askan rek la ñuy def ñun nag bëgg nañu foofu état taxaw ci li ñuy wax nag tey ji nag waral manifestation mooy suufu Guéréo